dafa am benn éclaircissement bu ma bëgg a def. loo bëgg a wax. waaw lu ma bëgg a wax. Hmm. c'est la première ah. fois sax loolu ma nar ko def nii. parce que tamit hmm. aussi yaakaar naa moon suma carrière def naa ko ba mu jeex kenn déggalu ma lu ñaaw ba ma bàyyee tamit maa ngi toog sama ruq. Hmm. kenn déggalu ma lu ñaaw waxuma lu ñaaw defalu ma lu defalu ma lu ñaaw. jotewu ma ak kenn mais dafa am benn sortie bu ma gis rek mbay Ndewane mu def ko. Mbaye Ndewane mooy. entraîneur Tapha Tine Mbaye Ndewane mooy entraîneur Tapha Tine. daa def benn sortie ci yow. daa def benn sortie ba tudd ma. ok bi mu loolu amee tamit man. Mhm. dama jël sama téléphone woo ko. Hmm, woo nga ko téléphone. dama ko woo téléphone ne ko Mbaye Ndewane dafa am benn sorti bu ma dégg nga def. Mhm. c'est parce que ne man yow sequñu lu tax nga ma mën maa wax loolu. mosu ñoo jote mosu ñoo am benn problème man ak yow jàmm ak salaam la ñu mën a se mos a seq. Mhm. alors ci biir loolu nag am na lu ma expliqué. ma ne ko déjà yow benn li nga wax du dëgg ma ak ma suñu dëkk. te moom ne na dëkk nañu six ans man moom mosul am. man dama dëkkoon fenn Bada Sung mooy sama xarit. ñu fa daan daje Baye Bada bi yore écris Cheikh Mbaba. fa la ñu daan daje Pape Faye ak Bada ñoo dëkkoon dama fa daan fréquenté te taa boobu noonu kiiwaguma woon sax ci làmb ji ay mbapat laa doon bëre. ñu fay daje man ak moom foofu la ñu xamante man ak moom alors mu dégg nag mu def benn sortie wax ba ne soxlawuma écrit mag affaire yu demee noonu du ma xaar nit préparé combat ba ay six mois ngay ñëw di bëgg siiw tax ngay dugg. wax naa ko nee naa ko yow ñaata écurie ñoo am waxuma sax bawul écurie bawul mais ñaata écurie ñoo am Sénégal à part force tranquille wala sama doom fils de Sallou di bëri nga gis ma ci beneen écurie ma ñëw ànd ak mbër ma mosul am mu ne ma dëgg la ma ne ko tafaatin yow leer na ne ñëw ñëw weer man combat ma Yékini senior moo tax ma dem fa ma ne ko ba mu bëree ba pare ñëw na sama kër remercier ma ne ma li ma waxoon ci làmb ji gis naa ko mu ne ma moom ñoo àndoon moom mbay Diawane te dëgg la ñoo ànd ñoom ñaar bu ñu fay ñëw. mu remercier ma sant ma gërëm ma. bi mu demee après ñuy doxat ko maam Bombardier mu woo ma yaakaar naa ah, Pape Thialine moo ko bëggoon tëgg. mu woo ma téléphone. moom Tafatine. ne ma waa ji daf ñu bëgg a jox benn somme après mu def ma ne ko booy da nga nekkoon ci làmb am ci ay jafe ay difficulté kon mbër mu màng sooy sooy waxaale combat lañ la fay. liñ lay fay ñu xaaj ko ci digg bi jox la sa avance nga dem amoo ku la jàppale am na yenn somme yoo xam ne bu ko jël mënoo ci préparé wu ñu waxtaan man ak moom mu ne ñu d'accord ci mu ne ma loolu laay def bi loolu passé déggaatuma ko ba ni muy bëri ak yëg ak euh, kii bi muy bëri ak booy ñaa waxuma waxuma làmbam man tam Gaston production ñooñu invité woon man ak Boy Kaare li may wax day am témoin Boy Kaare mën na ma témoin ci loolu ba ñu bàkkoo dama yéeg kaw tribune ba ma toog toog ni seetaan làmb ji ba ñu bëgg a bëre booy kayre mën na ma seede mi ngi may dégg ma toog xool waa bawal yi ni ñu mobilisé woo ñëw supporté ko ma xool cumikaayam xool cumikaayu euh, booy bi booy ñaa booy ñaa ma gis waa Pikine ni ñu mobilisé woo ay mm-hmm. mag magu mbër nekk fa mm-hmm. ma ne non baal ma wàcc defal yàlla parce que bawal laa dëkk tey bu daanoo bu ñu ne bawal du ma fa génn su daanee mënuñ ma fa génne. naa li ma am ci xam-xam naa dem wax ko ko bi ma ñëwee ma conseil ko la mu bëree maa ko conseil mu neex la mu neex mbay ndewaan mu naqari ko loolu moom moo am Babacar li ma ko wax loolu la bëree. ma dégg naag dama dégg nag ci interview bi mu ne du ma bàyyi nit préparer combat am ba 6 mois nga ñëw naan man maa tax mu daan ma ne ko yow dèjà ma soo gis ma xartu ne dama ñëw ci tafaatin ma soo gis ci benn écrit man dama fay dem beneen mbër di bëri am naa sama dignité ak sama ngor goo xam ne. luma nit waxul duma ca dem lolou mo tax ma dem te benen bi dak sour bo mak yow noo naroon def direct babakar Dakar acte fi ma dem. stade waaw waaw waaw. ci combat ma tafatine ak. bombardé Omar Omar sen wala bombardé. mok Omar sen la mok Omar sen waaw bima demé demee wuñu mako parce que ba combat bo bo ñaa ba passé. dégg woowuma téléphone waxuma dara mom tafatine man tamit ma tok def sama njàmbur ba combat boobu amé tamit aussi. maak yow ñoo naroon def direct de ma toog fa ma toog far yàlla dogal ñu eh. dend fu ñu toogee ñoom seen cumikaay hmm. Ibou Fall maa ngi koy gis moo ko ne dafa grand zàlloo nga ne dafa déplacé wu ñëw wax ak man ci laa jóge dem wax ak moom mbay ndewal mu ne ma nag moom mu ne ma waxuma ak yow saal dafa am ñu may tontu ma ne ko non même booy tontu ñooñu tuddoo seen tur sama tur nga tudd mu ne ma yàlla xam ne du yaa tax may wax mais ba dajoon ak benn gang boo xam ne dañuy dañuy lijjanti pour yow nga ñëw ci écrit ba te jaare ko ci man loolu doy loolu ngi non la ma wax loolu ngi bëgg a doy waar bi ma ko woowee téléphone moom loolu la ma wax nee na ma waxuma ak ba da jon moo tax may wax ak gangam parce que dañuy lijjanti pour nga ñëw ci écrit ba te bu ñu koy def dañoo war a jaar ci man waruñu jaar feneen te saal boo gisee ma wax loolu boo gisee may bañ loolu te parce que ba nu nekkee écrit bawol nekkagul écrit mbooloo bawol mbooloo écrit fal dañu jël jib juuf indi ko fa bëgg ko teg sama kaw loolu moo tax may bañ mais ci loolu mbay Ndewane dégg naa si ay sorti bu dut boobu ngay wax di leen bay saaga Mbaye Ndewane man ak yow du ñu benn nekkuma fii sax bu la neexee nag mun nga tontu mais nekkuma fi di dangasanteeg yow te li nit ñiy wax Sénégalais yi di ko wax toog ci tele yi di ko wax ak rajo yi naan Sall dafa war a ñëw jéggi Tapha Tine du man maa ko wax nit ñoo def ko saa bu wax ko te dama ko fi liggéey nag tamit aussi. te équipe nationale ba ci mbappati ci biir bëri simple Mbaye ñaari combat nga benn ba jili mbay maa ko gunge faas mu ñëw daf la dóor ba nga bëgg a dee première mi-temps ñu ne la kaayu baat bëre non bàyyi mu ñëw Babacar mais bugguma li du sama jikko quoi ah, mais li mu wax dafa ñaaw soxlawuma ko ci ma écrit mel ni man maay xaru pour dem fa mosul dégg benn yoon ma ne dama bëgg ñëw waaw mais waaw mais xam nga comme nit ku la dul tooñ Babacar doo ko tooñ man du ma tooñ damay doomu aadama jox respect dama lay jox cër mais da nga ma koy deloo euh, mosumaa toog li may wax ci tafaatin mosumaa wax tafaatin lu ñaaw dinaa toog nag ñu laaj ma ci moom ma critiquer ko te loolu daf ci war a def jàngat en tant qu'observateur quoi loolu yëpp moo koy def sax quoi loolu moom daf ci war a def jàngat ma ko manqué mu uti ji ko waaw damay bañ man kii mu maa xëccoog yow place <laughs> mbay ndewan la yéene yàlla la ko yàlla defal nañ nañu nañ ba nañ kii noonu xam nga waaw dafa ñaaw tamit waaw mais xam nga comme soxlawu ma ko bu amee crème ko téeg yooyu man moom loolu bu ñu lay wax Bada Dione mhm. na am fula ju toll ni jàkkaarloog Bada Dione wax ko loolu te Bada Dione dama da ma fi may tuuti Bada Dione limuy muy li ci ikri ci Bawol écurie Bawol yi dafa yor écurie mais yamuta te man xamna ci dara keneen xamna ci dara yaakaar na invité nga ay yenen mbeur yu dëkk yenen écurie ñuy wax ci baaxaayam Bada Dione day fédéré Bada ko jox xamé dañ ko jox cër xameewul ba écurie ak ikri keneen ñëpp la yamalé la muy def Bawol néew nañu ko fa def am nañu ko ëpple fouf Mbaye Ndewane bu demee dina bàyyi di xas nit ñi quoi Babacar il faut nga may ma tuuti lii du sama jikko mais bu demee banaan naan dafa am ñu dëkk Bawol Assis Ndiaye moo yor seen dépasse nan la fa Assis Ndiaye yor seen dépasse. Assis Ndiaye man mu Assis Ndiaye mais maa dégg benn interview mu wax ko. Assis ah, Ndiaye deful dara. Assis Ndiaye promoteur la du promoteur rek mooy promoteur mu koy na ñu bàyyi bu ñu bëree ñoom di leen jël ay xeer di leen ko sànni defuñu dara yow miy jël di bëree ñoom nga ne xaritu Balla Beye la Balla Gaye la bu Balla Gaye di bëree bu ko tëgee bu ko tëgul dana ko jàppale lañu ko seq mais nañu bàyyi wax yu ñaaw ya xasante yi di dégg naa ko muy wax bay saaga waaw mais loolu rafetul. waroo nekk ci télé yi di wax di saaga quoi. waaw defet ak moom waru la affecté ba ngay def loo xamante ne. waaw dëgg la grave mais man tamit. dama lay ñaan rek dama lay waaw man du ma tooñ kenn seen wax wax naa zaal na dem foofu nag. day dem hmm. wax ko ñoom du man maa ko wax. dëgg la waaw mais am naa fu la ju toll ku ma yëgul yëgu ma la ku ma faalewul faalewu ma la mbay daw. ndeysaan non bu nga tontu nag tey laa ci mujjee wax. non grand xam nga man tamit vraiment xam naa ne lii du sa du sa kii quoi parce que depuis ma ñëwee fii ba tey defe naa émission ma fi njëkk a def muy xaatar bi yow yow laa ko defandool ba tey yàlla ñu suturaal ñu ngi koy continuer di ko def te itam émission yi muy xaatar bi wala débrief bi ñuy def tey saa su ne Sénégalais yi koy apprécier di ko seetaan de façon nan parce que technique bi ak xam-xam bi nga xam ne yaa ngi ko fiy étaler te ku fi ñëw tamit ci invité yi daf lay reconnaitre par rapport ak sa liggéey loolu yaakaar